ci àdduna mais ñooñu dañu am problème wala. waaw waaw est-ce xam ñoom sax seen jikko neexu leen ni ñu mel sax neexu leen. dëgg la waaw waaw léegi loo loo ci mën. mënoo ci dara koo xam ni mel moom neexu ko. Mhm. loo mën ci loolu. Mhm. donc loolu moo tax des fois da ngay romb rek nga dem. dëgg la waaw comme que yàlla dogal na ne. Mhm. Euh, yow xam nga sa xol. suñu borom xam na sa xol. ah mais doxalal. mais mais mais man li ma jaaxal pour parler de coowal Aziz Dabala qui était un artiste li muy artiste moo tax xam naa coow li toll ni mu toll mais. réew mi yàgg nañu fi faat ay nit. Ah. chaque jour nga dégg ay faits divers yu ñaaw yoo xamante ni maara détail yi nettaliwu ma leen ko mais bosam dafa lëmbe réew mi lëmbe àddina ku nekk di waxee boor. Mhm. ñëpp soppali ku doon ay enquêteur mhm. ku ci nekk ak la nga cay wax. Mhm. ñi daawul topp kaa sax léegi ñu ngi topp kaa. mais man li ma jaaxal mooy kàkkatar gi nit ñi nekkee kàkkatar parce que bi dee bi amee rek dañoo jëli sa wu yàgg. di ci soulagé wu. Ah. mais quelques semaines après. Ah. ñu jëlaat sa beneen woy di ci coow. mooy yow loolu ja ja ja. xam man affaire bi dafa compliqué ci man de. mooy mooy yaa baax li ngay woy ni kenn mos ko woy yaa baax. bokk mais loolu laa doon dégg. Ah, beneen génn nga ne yaa bon. ah munoon ngaa xar waaw waaye waaw loolu. <laughs> Eh, mais yow loolu du du la dof loo yow. ndayu bi léegi gis nga xam nga des fois nit ñi dañuy euh, euh, nit ñi dañuy contradictoire waaw. mais yooyu waaw c'est contradictoire quand oh, ok yaa ngi yaa baax. vraiment am da gis si gis naa kenn koo xam te ne dafa jël bii woy mooy moytu rek bi. waaw challenge ko ba ba def ko lépp. waaw suba. mu def ma vidéo nii daf may critiqué ci morceau bi bi waaw. te moom jooy jooy na ci moytu rek ok jooy na fii. Uh-huh. Euh, parce que dafa triste quoi. Uh-huh. fii nag neen day kaas. ngaa xaar ba mu mat 40 jours. boo ko génnoon 40 jours xam lu lay wax. Uh-huh. waaw kii boo bàyyoon ba un an nga génne clip lu lay wax. non waroon génne clip parce que dafa gaañ. waaw waaw léegi yow waaw léegi yow léegi yow waaw léegi yow weer waa ngi nii. <laughs> nga ne lii du weer li engin la. lu ci nit mën. waaw mais ñaari man man ña man damaa mujjee jaaxle man c'est-à-dire am na moment boo xam ne nag boo ci tollee ñoom Kumba Gawlo dama ko dégg benn jour muy woy naan àdduna bee dof. wala man maa dof wala man maa dof ok. donc ay question ngay posé wu yow ci benn en un temps record ñu ne la ah woyam bii de moytu rek bi vraiment mooy suñu woy dafa méngoo ak jamono. Mhm. vraiment am na ñu bëri sax ñu foogoon ni woy bu bees la te woy bi yàgg na. def na huit mois. ça fait huit ñu jékki-jékki nga tourné ak Aziz Dabala. waroon ko génn c'est-à-dire même bu deewul woon sax clip bi dafa waroon génn noonu. non ñu bëri nag dañu jàppoon ni. Uh-huh. way bi may war a génnee. te ne Aziz moo ko mujjoon kii. moytu rek bi moytu rek mooy affaire bi. dama leen a njuuy. ñoom dañ doon xaar ma naan Aziz yaa baax mais mu woyul tuuru na xajoon nga fi yaa ngi dégg far ma jàdd beneen côté. parce que bi may wax ci sama première interview dama ne. Uh-huh. Euh, clip bi ma mujj def sax Aziz ñoo ko defandoo yàlla yàlla jëlee ko fi. Mhm. léegi nag ma def annonce ne damay génne clip bi ñëpp jàpp nag hommage laay def parce que bii woy bi ma koy woy boobu Aziz feccul lii parce que lii def naa ko sa fait huit mois. kon kon lii nga tourné ak moom. déedéet du lii. Ah, mooy track bi la. ok mooy track bi la. waaw Aziz feccul bi. ok noo fecc ko. ok ok mais bi ma ko defee. Mhm. Euh, bi ma fecc ak bi bi Aziz fecc ba pare. boobu bi nekkee ci montage bi dañ ne léegi. comme bi ñu màggalee deux jours dañ ko war a génne. bi ñu màgg moment bi ñu préparé dem pour màggal. affaire bi am. ñu ne nañ ko bloqué. nañ ko bloqué mais dafa waroon génn avant màggal. waaw waaw dafa waroon génn avant màggal d'abord avant màggal la waroon génn. gis nga boo dégloo vocalu Aziz nekk sama téléphone fii. waa dem ba gis yow yow la teree gën a kii yow ah, vocal na la avant. ah bien sûr bien oh sûr. waa dem ba gis yow yow la teree gën a vocal yow. su may wax lii sax man waxuma loolu loolu la ma tere nga génne clip bi mun koy Aziz may ma tuuti rek dafa dafa may xaar xam nga ñu bëgg ko génne ci ci avant màggal gi ñu ne ay màggal gi ay 5 jours 6 avant dañu nekk ci préparation mhm. ñu bàyyi ba bu ne xaw ma je pense deux deux jours ah, màggal ak yooyu wala gannaaw subal màggal gi rek mhm. affaire bi am mhm. ah ñu ne kon léegi nag dañ ko bëggoon génne lendemain màggal wala sur lendemain dañ dañ ko bàyyi ba affaire yi xaw a sedd waaye li projet la projet la ah. projet la nit ñi ñu ngi wax te xamuñu ne sax est-ce que man maa moom projet bi ma woy c'est-à-dire woyu jàmbur la wala projet keneen la wala. est-ce que Demba nekkul ci contrat te am naa droit génne ko ah même bu dee man maa ko moom waaye dama ne est-ce que tey nit financé wul ay million ci clip bi fay gi sa fay ñëpp fay lépp mbaa ma mbaa producteur nekk sama ginnaaw fay lépp toog su ma doon rey sama bopp bu ko bëggee génne di koy génne. dëgg la tamit bu fekkee ci contrat laa nekk. dëgg la dëgg ah. la tamit dëgg yàlla nag dimbali ma. Aziz nekkoon ku baax loolu nag. Mhm. ñu liggéey ba pare. Mhm. ci jour clip ba ma fay ko. ma mhm. mat sëkk wax dëgg yàlla yàlla dimbali na ma ci. comme ni ma ko doon defee. waaw léegi clip ba jàll na. dëj bi jàll na dem naa si dëj ba. seet naa maire bi. bon def naa li ma war def en tant que jël jullit ak moromam. man ak artiste mu fekkanteel maa ngi nuyu ki abu ci bala ñoo fa nekk ndoowoon. ma ne maire bi sax xam naa bi yëpp passé nit ñi delluwaat nañu. Mhm. ku ne. Mhm. xëy nga dem liggéey nag. Mhm. ku ne. ñu ci dëj ba. ku ne xëy nga dem liggéey ji. dëgg man du ma xëy dem liggéey ji. <laughs> dëgg dëgg ah. te démb du malien de. Eh, ah démb a dëgg la nekk. Eh, eh, incomprable man na ma foogoon ni bambara la <laughs> waa Côte d'Ivoire. incomprable boo ko gisee daf daf ma jox ñàkk quoi. Ah, <laughs> léegi boo ko ngay xam ni kii. waaw ah. fii la dëkk. ok léegi. Uh-huh. léegi yàlla dogal. Uh-huh. may continuer uh-huh. liggéey bi. bi clip bi pare. ma bëgg ko génne ma ne non attends comme kii da cee bokkoon. Euh, ki au lieu de def rendre hommage comme ni ko ñenn ñi yaakaaree. aw mooy mooyul tuuru na Aziz yaa baaxoon yàggoon nga fi non non non ma ne bàyyi ma jël. ah ma mhm. ak moom ñoo ko def ndax photo boobu bi photo bi mu mu nekk ah beneen fecc bu jigéen mën na fa. yaay ah, dégg parce que j'ai vu que photo bi nga ñi dañ ko collage. ok yaay dégg. ñii wax gauche di ci wax ay bal. ok léegi ma dem ba ci bi ma jël Aziz ma ne kat ku wax Aziz. wax wax xale bi comme nag mënumaa jël comme ak ni nga xamee di ko sénégalais comme mënumaa jël ñoom ñaar ñëpp di ko def. Ah. man xaw ma woon xale bi Aziz laa xam. te Aziz mooy artiste ñeme naa jël Aziz teg ko fa. waaw te yaa te moo fekk ci clip ok yaa ngi te Aziz mbébétam rek laa def. lu tax génneew sam lu tax génneew clip bi mission la bu may eggali. avant muy dee mu ngi lay wax ni. Eh, eh, eh, génn ma dem ba clip ba génn. Uh-huh. bu clip ba jeex. Uh-huh. ma bind si reposer en paix. ñoom ñaar. Ah. yaa dégg ci fin clip bi yaa ngi dégg. comme ni ko neen ñi defee. tey bu bu footballeur décédé wala basketteur. Hmm. dañuy organiser benn tournoi. basket wala football woo nit ñi euh, ancien basketteur wala footballeur di passe ñëw di rendre ko hommage yaa ngi di xama mhm. man lii sama liggéey la mhm. te moom miy décédé dafa fieroon ci liggéeyam bi làqatuwul nëbbatuwul mhm. ay dégg def naa ko je je parle pas de yàlla ou yonent bi ah kooku beneen débat la dégg on parle de jamono ci liggéey la yaa dégg waaye mais liggéey bi mission bi moo continuer lan moo xew lan moo xew dégg ndax des nag kaay wax la sax gis xam nga des fois événement yi bu amee. Mhm. Sénégal ñëpp ay inspecteur la ñu nekk. dëgg la waaw inspecteur la ñu nekk ku nekk. Mhm. am nga sa téléphone. Mhm. am nga sa bagage yaa ngi wax yaa ngi nag yaa ngi yaa ngi yaa ngi dégg. te man le problème mooy li ci am ñu ci bëri man xaw ma leen. waaw li kii waxoon rek li li li li. li léegi ñoom lan moo leen déranger lii nii moo leen déranger ou pas. bon c'est nag xëy na xamuloo non xaw ma xaw ma mais pourquoi ils disent que yow da ngay profité ci buzz bi parce que lii sax du buzz. Ah, waaw quoi am faatu artiste merci beaucoup merci beaucoup loolu sax loolu sax vraiment bi ma ko déggee dama ne subhanallah naka ngay jëlee nit nit nit ku dee nit ku dee ak dee du mu toll mhm. nga ne da ngay profité ci buzz après gis naa kenn mu ne bi ma duggee si ay kilibam mhm. bëriwul vue ay bébé cinq millions de vues la mhm. ku ko way Demba Guissé waaw ah, sama diwo ak Titi. Mhm. kan moo moom ab production bi. ah ku way ati ah, woo Titi. mu ngi am trois presque 4 millions. Mhm. Euh, sama diwo ak Pendo bi ma way euh, mu ngi def 3 millions de vues presque 4 millions. ma def sama rafet kaar mu def euh, presque deux millions. Demba Guissé waaw léegi su ma wooyee bii mu def sax 2 millions daf maa jom wala cinq millions. dëgg la dëgg. d'accord waaw léegi ki tegle ay 5 millions ki 4 millions ki 3 millions de vues. dëgg yàlla <laughs> dinga jël ku mel ni wax dëgg yàlla nag ñu war a wormaal trop nag ki décédé est-ce que mm. xam nga Pape Cheikh Diallo. Mm-hmm. man man maa gën a ñàkk ki Aziz mi. Mm-hmm. kenn ku fi ñàkk man mën naa wax ni man wala ñu artistes ñoo gën a ñàkk. lan moo tax nga wax loolu. waaw mm-hmm. bi ñu demee ci yaayam. mag Abou Cubalo dañoo toog. yaayam ne ma. Demba gise yéen rek a ñàkk. ndax Aziz yéen la doon gën a nekkal sax ko ñun ñu ko jur. ne parce que lu mu bon bon. yéen la doon liggéeyal saa buñ ko soxlaa ngeen ñëw. te seen liggéey mu def leen ko ba ngeen kontaan ci ba ku dëkk rek mu wax ko kon yéen a gën a ñàkk. dégg te man joguma di déggante ak ay frères am. Euh, euh, ba Gawlo ba démb ñu ngi waxtaan. frère ma. ok mooy kiy def te mu ngi wax rek. ok borom borom kii dem ci plateau yi. waaw non non non euh, non non moom moom moom moom euh, euh, xëy na xëy na. dara am na kuy dem ci plateau yi rek di wax. non moom. mu ngi kooku kooku wax rek. déedéet non non non di loolu xam nga des fois am na dara dara nu muy nu muy ñëwee. ngeen bokk ndey ak baay. nga génn une fois pour leeral. nee naa ko sax léegi dimbali ma rek. Mm-hmm. toogal maire bi sax maire bi sax buñ ko jëlati waaw xam nga waaw xam nga maire bi comment elle se sent mu ku gëm yàlla la barki salaatul faatih ni koy sonal nit yaa ngi dem di maire bi ku waaw nit nag nañ ko bàyyi te gis nga internet nañu dimbali maire bi rek waaw ñu bàyyi ko tuuti daal mu dallu mm-hmm. c'est vrai que internet bi dañu def seen liggéey baax na mm-hmm. mais mag mag la mm-hmm. te aussi vraiment ñun fi ñu nekk ñun ak showbiz niñ ko xamee di ci wax xëy na maire bi maîtriser wu ko noonu te te damay bañ ñu waxloo waaw mbaa ñi dugal ko ci benn euh, euh, wax boo xamante ne xëy na moom en maîtriser wul trop en showbiz daal xam nga. Mm-hmm. te mag la ku gëm yàlla la. barki mm-hmm. salaatul fatiha mm-hmm. maire bi dafa gëm yàlla trop. bi ñu egsee ñun ñoo gënoon sax triste maire bi lu ñëw rek daf ko oyofal jàpp ko. comme jàpp ko parce que lu méttee nii. psychologiquement parlant.